Uh, je suis impressionné par les équipements. Je suis également impressionné par la vision de ce pays. À voir ce qui est devant nous, je pense que le Sénégal est leader, leader parmi tous les pays africains. Je pense que c'est un bon travail un travail de concert avec le gouvernement. Ce sont des équipements modernes et actuels. L'approche du groupe EXCAF est un travail excellent. Ils viennent d'ailleurs de me dire qu'ils ont 14 centres comme celui-ci. Je pense à ce titre que ce n'est pas un travail simple, mais il était nécessaire de le faire. simple excellent c'est tout simplement formidable ce que euh, ESCAP a fait. Euh, c'est un modèle de type BOT, euh, Build, Operate and Transfer. c'est un modèle qui pourra éventuellement inspirer d'autres pays africains. Dans la zone UEMOA, le Sénégal est le pays le, plus avancé. Je dirais même que c'est le premier pays. Les autres pays, j'espère qu'ils s'inspireront de l'exemple du Sénégal pour que très rapidement cette migration vers la TNT puisse se faire. L'expertise du groupe Excav Télécom repose sur une technologie de pointe. Elle a permis déjà 92% des taux de couverture du territoire national. Ces modèles de réussite aiguisent des appétits en Afrique et la société burkinabé de télédivision n'est pas en reste. On est édifié de voir ce qui a été fait au Sénégal par rapport à la transition numérique on est là pour une rencontre qui parle justement de ce sujet. Et pour moi, c'est vraiment édifiant de venir voir ces équipements. Et ça nous inspire aussi à travailler pour que ça soit une réalité aussi dans notre pays. Le Sénégal émerge dans l'ère du numérique et le groupe EXCAF avec. Il s'agit du couronnement de plus de 40 années d'expérience, de gros investissements et une ressource humaine de qualité.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 ku nekk fa nga nekk ñu fekk la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la bu baax a ziar la bal la àq baalu la àq dugg ci kër kilifa diine yëpp ziar leen nuyu waa Touba sëñ Sidi Muxtaar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool dem Tiwaawoon ñaanal suñu maam ñaanal sunu sunu sunu maam moom tam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax mu yàgg fi lool te wér ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu demoon ci màggal gi ñu ngi leen di ñaanal lañ fa jële muy sëriñ ca yal nañ ko wasaare ci ay jikko ak li nga xam ni suñu sëñ bi wax na ko xam ni rek nekk benn ñëpp benn lañ benn yàlla lañ am benn yonent lañ am li ci des nag moom yoon la yoon wi ku ci ku ci nekk da nga ko xàlloon pour bëgg rek ñëpp ànd dem aljanna kon jullit lañ ay benn benn lañu Sénégal benn bopp la kenn mun ko xar ñaar Mohamed xalifa bi dafa def benn discours bu am solo surtout ci wàllu bennoo bennoo dafa am solo ñu ngi koy ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér di ñaanal kilifa diine yëpp suñu Moustapha Sy daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaat suñu soppe boobu tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko bàyyi xel ñu ngi jot ay yóbbanteem ñu ngi koy nuyu sëñ Habib mu sëñ Alpha Sy sëñ Mbaye Sy Abdou ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal képp ko xam nak yaangi jakarlu ak ñun mo xam nga nek fi ci rew mi wala nga nek bitim rew jox nañ la suñu loxo xol ñaanal la ziyara la bu baax a baax baax baye nañ leen xel comme ni ngeen ñuy baye xel ño leen ko digoon ñi ngi andon ak oustaz Mohamed Mbaye Masha allah nek fi ci yof nek suñu rak yore daara ju mak fofu ñu andon ak mom ci tomu waxtaan bu am solo dañ kay baye mu nuyo daal di continuer waxtu waxtaan bi nga xam ni commencé woon nañ ko mais Mohamed jot nañ ay coup de ah ay SMS macha allah di rafetlu surtout xam-xam bi xam nga olof day wax naan kii fecc moo xam galañ la muy tëgg. jàngkat moo mën a seede ni kii macha allah borom xam-xam la ay oustaz yoo xam ne woo nañ ma ñoom oustaz oustaz Fall ñu ngi lay ziar oustaz li moom tam ñu ngi koy ziar di ko bàyyi xel ñoom ñëpp ñi ngi rafetlu nee nañ daal xam-xam bi ni nga ko joxee. am na solo te xam naa bëri nañ ci ay morom kon yal na yàlla barkeel sa dund barkeel sa xam-xam def la nag nga nekk mag macha allah kon ñu bàyyi la nga nuyoo tafaddal mashkura والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده mbokki jullit ñi mbokki Sénégal mbokki àddina ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ñi ngi lay wàccee ci sa wàccuwaay di nuyu suñu mag ji ñu bokkal jotaay bi te muy Seyda Zeynab di ñaan yàlla dëgëral ay dëggoom li mu mébét ci daawatul islaam li mu mébét ci toolu yenent bi yal na ko ko yàlla jottali di nuyu comme ni mu ko waxee këri diine yëpp di nuyu suñuy maam yëpp di nuyu suñuy am di jàmm di nuyu mbokki jullit ñi Euh, di ñaan yàlla tam euh, kër gii ñu nekk ni yal na ko yàlla yëkkati. amiin comme ni mu yëkkatee jant bi. amiin kon salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. di nuyu waa Ndiassane. di nuyu waa Ndiassane waaw. ñu ngi leen di ci suuf maa ngi waxtaan ak euh, sama yaay. Mhm. soxna Lalla. ndax waxoon naa ko Sambadjan ñu ngi koy ziar waaw macha allah. di nuyu suma waa kër Serigne. Mhm. di nuyu taan Nabou Papa Nass Sanokho ñoom ñëpp maa ngi lay nuyu. di nuyu samay nijaay ya fa ne daal. Mhm. tey ci suba rek Cheikh Kounta mi ngi may woo. dëgg Cheikh mu maam Sidi Yaxya Kounta. waaw dëgg la dëgg la tey ci suba rek macha leen di ziar bu baax a baax ñu daal. Mhm. di ñaan yàlla daal ngeen eh, ngeen yokk ñu ñaan mhm. yàlla yokk at yi mhm. xam-xam bi mbokk yooyu doon wax xëy na ñoom danoo baax rek waaye daal eh, ñun daal ci li ñu tënku ba tax mhm. ñu nekk ci ba léegi mooy la waxkat ba doon wax ci muxtaarul adab dani laa taqul qad zahabat arbaabu kullu man saara ala taabi wasal waaw dëgg la waaw bul ni yàcc rek ni yasa gars yi daal dem nañu kullu man saara waaw ala darbi wasal ku tegu ci yoon bi rek di nga yegg kon yàlla na nga loolu lañ gëm def ko suñu qaayida bi ñu teg suñu kanam. dëgg la mooy règle bi ñu teg suñu kanam. kon yàlla yegg nii woon moom lay ñaanal sama soppi bu Mansour Diop bu Zik FM. yow kon maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. nga comme niñ ko xamee. waaw bii tomb waxtaan bi nga xam ne indi woon nga ko. muy amraadul qulub. Mm-hmm. maanaam feebaru xol yi. compteur boobu nga xam ne moo nekk si nit. Mm-hmm. nga xam ne moo koy animé. nga xam ne moo gën a am solo ci nit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon saxaaba yi mm-hmm. am na benn dogit bu nekkee si nit su baaxee nit ki baax comme bu safaanoo nit ki safano biñ ko lajé def ni mom moy xol day am nak ay fièvre ni yaram di fièvre xol non lay fièvre nga indi won ci ay tombe def na biñu ñuy jotaay bi kérok ñi ngi nekkon ci al qalbu salim manam xol borom xol bu laab ah borom xol bu sep borom xol bu rafet ni nga xamni non lay feeñee mandar gay nga mon ci fukki mbir amna dañ lay bàyyi nga waxatal ñu fukki mbir yoyu manam ko xamni dal xolam set na laab na fukki mbir yoyu yalla lañu ñu soog dugg ci yenen tombe yi rabbil alamin Seyda Zeynab keroog ñi ngi toll ci xol bi nga xamante ne bii mooy xol bi yàlla tuddoon ci suuratu shuara mhm. mooy yawma laa yanfau maalun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ñu mhm. toll woon ci génnee xol boobu lan mooy ay meññenteefam mhm. ñu waxoon fukki jikko yoo xamante ne bii nit ki amee xol bu wér boobu dafay nekk ci moom euh, li njëkkoon ñu ci tuddoon moom mooy dafay nekk qawiyal jismi day am kàttanu yaram am kàttanu xol mooy quwatul iman ndax benen bi moom mooy dafay doon koo xamante ni bii mu saqaful lay doon. moy ko xamanteni da fay cultiver pour ñi ñi sétan day am xalaat day am saqafa ci diine day am saqafa ci walu adina waaw nit ki bu xolam wéré da fay tax adina mu am al fahm as sahih am ku nekk ku nek compréhensif. nek nekk ku yeew. macha allah nekk ku muus nekk koo ay mbiram da koy teg ci tegaay. da koy teg ci yoon liñ ci joxe comme misal sallallahu alayhi wasallam ci da'wa bi. mu xawé am jafe-jafe. dafa njëkk a wax sahaba yi. yabal leen ci an najaashi najaashi mooy fii ci euh, Éthiopie Habasha te yenent bi mi ngi woon ba Màkka ñu ne yenent bi lan moo ko jox information mu nekk ba Màkka kii nekk ba fii Afrique mm-hmm. mu mën a xam ni fii buur bu màndu mi ngi fi kenn duñ toon ci kanamam mm-hmm. ñu ne kon yenent bi dafa doonoon koo xamante ni bii ku am saqaafa la mooy yow mi jiite mbooloo. Mhm. yow miy doxal islaam mhm. na nga nekk koo xamante ni bii ku cultivé nga. da ngay xam waaw da ngay xam. Mhm. bul doon cuune. beneen bi waxoon nañ ko ñu ni dafay doon tam koo xamante ne bii matinul xuluq lay doon. waaw la. da nga wax léegi baat bu am solo ci sa biir nuyoo. nga ni li ñu jëlee Touba. yal nañ ko sotti suñuy xol mu doon jikko. waaw maa nga woon Touba waaw ma déglu ma déglu discours Serigne Bass Abdoul Khadar yal na mhm, yàlla dëgëral ma déglu discours euh, Serigne Mountakha yal na yàlla yokk ay leeram mhm. mais ñoom ñëpp boo seetloo seen wax daanaka benn la mhm. te ñoom ñëpp boo seetloo seen wax dafa concerné islam dëgg la mooy ñuy ah, woote ci benn waaw woote ci jikko yu yàqu ñu jëm ko defaraat ba pare tënku ci islam dëgg la kon dafay doon koo xamante ne bii mu euh, euh, dafay doon koo xamante ne matinul xuluq day am jikko ji yàlla tagge woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax imaam Ali daf doon wax lu am solo mu ni xol ci boppam li tax xol di wow moom mooy bari bàkkaar nit ki bu amul jikko ju bari pour mu fàggu ay bàkkaar yu bari da koy yomb bu amul jikko joo xamante ni jikko ju rafet la jikko ju rafet bu ko nit amul dafay mën a fàggu ay bàkkaar yu bari daf daan wax ni kafaa kafa bil qanaati mulkan yaa ngi may déglu bu baax kafa bil qanaati mulkan wa bi xusnil xuluqi naiman dëgg la xewal doyna ci rek nit ki am jikko ju rafet lool rek xewal la dëgg la nit ki nak bu beugé doon ko xamanteni bi bour la mom bi maanaa dafa nek ko am te ni ku noble la ku dal la na na doylu wa yeneen bi waxon nako ci hadith bi doylu lila yàlla jox rek bu ko defé nga doon agna nas warda bima khasama allah lak takun agna nas jehna kon sallallahu alayhi wasallam benen bi mu waxon ni na nga doon tam ko xamanteni bi qadiran ala al kasb nga man dóor war lolou sama mbokk jeunes yi la koy dénk ñu nangoo dóor waar. nangoo liggéey. waaw nit ki pour mu doon noobul mooy dafay fàggul boppam comme ni yeneen ci yàlla meloon. ni yeneen ci yàlla daawud meloon. yeneen ci yàlla daawud bi koy tagg dañoo wax ni moom daf daan lekk alal ji doon liggéeyee ci loxoom. ñu bañ a bàyyi bëgg bëggul yomb baaxul. bëggul yomb baaxul lu facile baaxul. Mhm. lool lor doomu aadama nangu alalam. Mhm. dugg ci kër nit jël alalam gaañ ko. dund mhm. bu yomb la. jullit du bëgg lu beneen bi moo kon mu doon tam koo xamante ne bi xarisan ala waqtihi la الامام حسن البنا دفدون وقتي دفدون الوقت هو الحياه الوقت هو الحياه والله دندو ييب موم موي تان دغلا تا آه، الواجبات اكثر من الاوقات يا زينب اسكي خمغني نون لي وار ماتول تي سونو temps bi doyu ci. te ñun dañuy bàyyi li ñu wax di nekk ci li ñu wër dañuy nekk ci li ñu wër. nekk ci loo xamante ni bii laa faayida lahu. wallaay amul benn njariñ. kon jullit boobu dafay nekk koo xamante ni bii xarisan ala waqti beneen bi moom mooy ci jikko yi. mu nekk koo xamante ni bii saxiixul ibaada mooy jaamu yàllaam du ko jëlee ci kenn ku dul yeneen bi. sallallahu saxiixul ibaada. mooy am aqida bu leer am pas-pas bu wér. toujours dama koy wax yoof. islam bu doon ab woto la. yeneen bi dong nga yor volant bi. keneen yeneen bi dong na buñ nee diw nag yow boo ci indee sa xalaat mooy yow da ngaa inxiraaf mawduu bi hmm. yenent bi hmm, hmm. ma ni bu doon woto la men nam sallallahu alayhi wa sallam moo yor volant bi amul beneen volant wala yow da ngaa gis oto bu am ñaari volant benn volant lay am islam bi benn volant la am sallallahu xam nga lan mooy problème bi waaw mooy ku ci dugg dem rek moo la yóbbaale loolu rek la sallallahu alayhi wa sallam kon pour nga am saxiixul ibaada ku wér ni ngay jaamoo yàlla fop da ngay topp yonent bi roy ko ci am comme ni mu waxon rek sallu kama raaytumuni usalli mhm. ak yenen yenen yenen yenen ni mu mhm. waxon ci adjak yoy mhm. bo joge foofu nga dem ci lan euh, salimul aqida wa ki am ki am qalbu salim day am salimul aqida euh, dama doon deg ci ben mak muni bala ngay xamni pass pas am solo nga doon nga doon ñaw dara ta faso taatu wëñ bi ta faso wa chat bi lo ñaw mu rocceeku deug la dégg naa taxoon na benn benn tubaab xaru de. daa yéen doo ñëw fàtte. fas ci fas ci ki cat bi. xëcc rek mu jeex mu daal dem xaru ji. xam nga ku ñàkk imaan moom. pas-pas. Mhm. doomu aadama faaw mu fas dara. dëgg la boo bëggee fas lu wow koŋ. Mhm. fexeel ba sa xol wér. Mhm. am pass pass bu leer. xam nga xam nga fi nga tollu ci tomb bi. yawma la yanfau malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim defena naa Qurtubi bo demé ci tafsiram. al qalbu salim moy ko xamné dafa dem yawmal qiyam ta bu ñu yëree xolam fokk ñu ci fekk ñu ci bakaru bokale kay fekk ñu ci bakaru bokale wa waaw fokk ñu ci li nga xamanté moy moy moy bakaru al hasad alxasad. dina ci ag ci febar ci xol bu febar ندخل يوم الحسد مم أول ذنب في السماء وأول ذنب في الأرض نعم واو مم بروميير باك واو واو مم لو نجك كدف تكاو تمام لو نجك كدف أتشوف نعم دقلا إبليس دفع إنيان مام آدم نكيد دينا كسجودا شبان لين كبيند خير نكو إنيان تخ دقلا مم بينو نيو يتم في تشوف قابل أكهاب اللي تخرين تبعم مم كيد دفع إنيان كي لو لا أقتلنك لا أقتلنك لا أقتلنك luko ko yobbe yóbbee moy awwalu zanbin ci kaw moy awwalu zanbin fi ci suuf moy febar bi nga xamantene bi mara day taal ndax dañuy wax ni wa ku xereñ ka daf daan wax ni sihhatul jasad mi ngi nek ci qillatul hasad deug la xanaa dégg nga dégg naa benn bindkat nee na. ku la la adaawaate xat tudja amaanatuha. fi laa adaawatun man aadaaka min xasadi. macha allah mi ngi noonu. ñaar ñu am problème. mun nañ dem ba jëmi jamono ñu jubóowaat. lu dul koo xam ne nag bi ngeen amee problème. li ko lal base bi. waaw mooy daf la soxore daf la iñaane daf la soxore rek. du jubóo nee naa nee naa nit xool na Seyda Zeynab iñaane ko wallahi xol bee feebar. mais bu doon islam do nga fi ne. non do ah yow dedet nit ki nga xamanteni bi bu xeye suba ba ngon ci islam lay nek boko iñane da nga febar motax dañ bi sax dañuy wax ni xana xamu khalifa bu mag bi ci Tiwaawan. muy Serigne Cheikh. Serigne Cheikh yal na yàlla yokk ay leer. amin daf daan wax ni. law kana al hasad shatan la qultu inma zubihat amama al masjid ndeysaan ndeysaan bu yéeme wallaay ndeysaan loolu nag ci sama mag laa ko jëkkoon déggee avant may njëkk a dégg xaaxida ci arab muy wax ni kiññaan bu doonoon aw nag mhm. boroom xam-xam yee ko séddoo man de du man de jommi naa waaw xanaa xanaa <laughs> <laughs> jaaxle naa. jaaxle woo waaw ndëkk nit nan lay xam-xam ba pay di feebar la feebar la. waa léeg nga dem ci géew ñuy comment ñuy xëccoo micro yi de. ah kay wala nga yàgg sax ci wala nga yàgg ci ard bi ngay ard sama mawdu rek ñu jéppi la. daal ni waa moo xam kii dafa xam dara. waaw déggal aaya bi muy wax kadaawa. léeg-léeg <laughs> yal na yàlla yaatal sa dënn. waaw mais loolu man léeg bu ma gisee ci sama mbokk wala sama morom mu am lu mu man mhm. da may ree ba pare ñaanal ko ko dama dégg sëñ Habib mu euh, suñu maam euh, Alaaji Ibu Saaxo ah, ah. yal na yàlla yokk ay leeram dëgg la mu ne iñaan dafa tardé Habib Mbaye sax daan ko ne hmm. iñaan dafa tardé ndax bañ ba dafa bàyyi ba yàlla dem muy soog a ñëw wallaahi wallaahi waaw am yaxsuduuna a ala ma aataahum allah min fadli ah, wallaahi nga iñaane li mu am yàllaa ko ko jox yàllaa ko ko jox te joxe na ba pare te nag xam nga ki iñaan waaw xeexul ak ki nit ki de yàlla yàlla lay xeexal waaw jéem na bu dee melokaan yàllaa ko ko def bu dee li mu am yàllaa ko ko jox kenn mënul am loo xam ne yàlla bindaale woo ko ci lu ko fi عليه وسلم لم يقل إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطر آه، سنديجاي نا بابا ناسانه دفما دف وقت أنت جاسان مني ما دون وقت أنت بين الموضوع تقول لي سخر مني دوم دخم قالن ماي سخر ماني كديري مني ما سخر ماي لدوجسي منك تجسبوب تالسبوب loolu lay soxor dëgg dëgg la ndax la soxore mhm. toujours jàppal ni yaa ngi koy gën a ñàkk ka nga koy iñaane ma ngi koy gën am benn borom benn borom xam-xam benn xakim mhm. dañ ko laajoon safara lan moo ko gën a tàng mhm. mun a xol bu boole ñaar macha allah ñu ne ko xol bu boole ñaar mun xol boo xam ne dafa boole soxor ak kiñaan nee na xol boobu moo gën a mën a moo gën a tàng safara jeex na mi ngi noonu dafa metti ma tomb bu mujj bi ci fukk yi moom mooy mu doon mujaahidan li nafsi mujaahidan li nafsihi doon koo xamante ne dafay xeex ak bakkanam mhm. dafay noot bakkanam mhm. ndax bakkan moom comme ni ko waykat boo xoon rek comme comme gone mhm. boo ko feralu dafay continuer di nàmp dafay continuer ci li neex bakkan bi rek lay topp kon dafay nekk koo xamante ne bi mujaahidan li nafsihi bokk na ci mawdu bi ci mujjanteel ga dafay wax ni bokk na ci li ilaaj قلب بو فيبره موي غاكاي ديفال محاسبه محاسبه النفس مانام لي فات خول بو فيبره واو موي غاي غاي غاي اوديتي سا بوب غاي اوديتي سا بوب قبل العمل وبعده لو نجهك غاي جيف غاي ريغلي سا بوب بو جيفه با بارا غا ريغلي سا بوب moo tax nit ki dafa xanaa xamoo nit ki dafa war a am wirdul muhaasaba foo koy defee ci sa kaw la bala ngaa tëdd nga régler sa bopp ay Mouhamad Mbaye tey loo def ci lu baax suba yokk ko ay Mouhamad Mbaye tey li nga wax ci lu bon suba moytu ko mu de ngay def muhaasabatu nafs moo tax Omar ibn al doo doon da doon wax ni xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu wazinu amalakum qabla an tuuzana alaykum waaw dee leen régler seen bopp lu njëkk ñu leen di régler mais dee leen peese seen i jëf lu njëkk yàlla di ko peese كويسه دقلك ندخ دني وخني علي ابن ابي طالب دف دون وخني من حاسب نفسه ربح دقلا ومن غفله خسر اها كيف كو رجل بكنم دافاي دافاي دافاي دافاي دافاي ام غنياي كيف كو كو سانك دافاي بيرت دقلا كون لولو لا لغي نا ني جوبلي سي خول بيغا خمانتن دافا دي وا خول نكا لاي ديوي دي لولو البقره اها وا انا بوما وخه بن علي وخ دافا وخني انما قسوه القلب من كثره الذنوب لي و الخول موم موي بكار يو يالا واخ اك يهودي بيمي واخ دافني ثم قسوت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر إيه منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء نعم. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون واي لول خول بودي دوكو ام ام نانيو ام تاني سين خول دينا و مي إيه، سيدا زينب كي تيم نيت رندي كو خول بي دي امي كوكو مانا خول بودي مي وامي نيكو اسكو خول باغا فا صاح وامي خول بي دوندول بو خول بي دون دوندول bu walla yow yow sa xol buy dund xanaa xamoo boo rombee si tali bi waa ji dóor fasam sax da ngay bëgg a jooy ànd naag nit ñu yéeg ci sereet waa ji di dóor fas wi mu nar a jooy dëgg la ndeysaan ah waaw waaw tim nit di ala bi zikrillaahi tatma innul qulub wallaahi xanaa xamoo feebar bi gën a bari tey waa kër docteur di ko faj nit ki balam fa doon àgg waroon naa mën a traité boppam ci islam muy ban moom mooy feebar bi ñuy wax stress stress stress stress. stress stress mooy lan. stress mooy feebar bi sonal doomu aadama yi ci ah. ci jamono man damay damay damay ne man xaw ma lan mooy stress. stress wu mooy lan man mii sax bu ñu ma koy expliquer pour ma comprendre dafay jafe. nit ki day jaxasoo rek day mun na dem ba jural ak ay cancer ah, ay yenn feebar. ba si cardiaque mooy jaxasoo. wala mooy tout le temps sa xol bi di di gonfler tout le temps. di mer. waaw looy mer. gis naa ko mu ray de. ومنك واخا دوني ما دوني ما مي مير بو بري باخول صح باخول نانا ندي قلب فيبر دو مير كلام يالا وا لغي نك نيت كي بو بغي دنجي لولو خمغا لوموي ديف دا فاي باري لوموي تود يالا لغي استرس دنجي موم استرس وا كاي اسكي دي نغ واخ كون خول بو فيبر بوبو بيتي نيك ديفو موم موي وهو yàlla mi la bind. yàlla mi la bind. nga dem ba xamatoo ko da nga koy da nga koy jéem a fàtte fàttelu fàtte ko amu fi li fi nekk mooy fàtte fàttelu ko. moo tax Cheikh Al Hadj Malick waxoon ci ci zajrul qulub. mu ne araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun. wallaahi fa lil kulli min baxri al mamaati nasibu. ala kullu mawludin fala shakka annahu. yusallimuhu yaa zal xabibu shaubu. ala kullu mawludin wa in taala umruhu. sa yadacuhu daaci hulkatin wa yujib dëgg la. mu ni maa ngi la gis ngay fàtte fàtte lu dee mhm. xol bee wow mhm. ah. wala takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum suñu borom a bari ful la mhm. ñoom dañ ko doon jéem a fàtte fàttel yàlla seen jëmmi bopp la leen fàttali dëgg la mooy ñoom dootuñu amati njariñ sax seen boppam waaw léeg ñu nit fàtte boppam kon gis nga Cheikh Alhaaji Malick mun la dee googu ngay jéem a fàtte fàttelu xamal ni da luy rot la rotuwaay la te ñëpp a cay root kon fàtte ko amul dañ koy fàtte fàtte dañ koy fàtte fàtte moo tax nit a def lu nekk ah, ankay mën a capable def lu nekk a di ko wallahi ala yazunnu ulaika annahum mabuusun li yawmin ah, bi yàlla di wax ak ñi nekkoon ca marché ba mhm. dañi ñoom danoo foog ni ëllëg duñ dekki mhm. ñii di peese di wàññi affaire bi te buñ mhm. leen di peeseel ñu bëgg mu mat yàlla ni ñoom day dañoo njortu ni ëllëg duñu dellu duñ leen dekkil ci kanamu yàlla yaa ngi dégg mu ni ala kullu mawluudin bokkul sax si mawdu bi mais dañ koy laal mais dafa am solo yaa ngi dégg mm-hmm. kullu mawluudin mag ñi dañ ko doon fire képp koo xamante ni bii jurees nanu ko mm-hmm. képp ku nu jur fala shakka mm-hmm. siki amul si ni ku judd ku ne lan moo koy seet si ashaubu dee yaadal habibu yow sama sopp الشعوب دي يا هذا الحبيب مني على يو دمني كل مولود كيف كو خمانتني بي جور نانيكو وإن طال عمره ak dundam lu mu yàgg yàgg moo tax ñi nekk ci état bi pouvoir bi nañ ci bàyyi xel tey ñi yàlla teg ci kanamu askan wi wallahi wal azim wallahi wal azim uqsimu billahi bis dina ñëw ñu teg leen ci kanamu yàlla yàlla dina jàkkaarloog ñoom ba ñu foog ni ñoom rek la yàlla bindoon auditation. wallaahi donc commencé nañ di auditer fii si auditer bi ñuy wax ci àddina ñoom dañuy recopier yàllaa koy def dëggantaan. Mm-hmm. ndax auditer bi xam nga ni yaa ma neex la. sax di am loo xam am loo bàyyi. am loo xam am loo bàyyi. mais fee yomb tub la saraa. léppay feeñ dara du nëbbu léppay feeñ. te responsabilité dafa diis. wallaahi. moo eh. tax ku ko am ñu gis la ay fan nga. commencé góor gi mu wa in taala umruhu mm. boo fi dundoon cent wala cent cent vingt ans yoo xamante ni ma soo see feebar sax. Mm-hmm. di nga dinañ la ma sa woo. Mhm. lii toroxolaate mhm. dina la woote di nga wuyu ji dëgg la dégg nga mhm. kon xol bu dee boobu du jaamu boroomam ndax xamatu ko dem na ba fàtte fàttelu ko dégg nga bi amrihi ci ay ndigalam wa maa yuhibbuhu wa yardaahu bal huwa waaqifun maa shahawaat yi xol bi day dema dem ba taxaw ci ay bëggi-bëggi boppam ci ay bànneexu boppam ci lay dem taxaw ci dégg nga wala zazatihi ak yi nga xamante ne bii yu ko neex la mooy mooy mooy yi mu xemmem moom ci boppam dégg dafay jaamu leneen lu dul yàlla mutaabidun li gayrillaahi waaw waaw waaw waaw oustaz nan nit naka la mën a jaamoo leneen loo xam ne bind ko ah, wax nañ ni keroog hmm. nit ki li tax mu mën a jaamu leneen loo xamante ne bi juru ko eh, bind ko eh, mooy ko mu lekk jox ko mu naan waaw du ko may wér eh. téewul noyyeem man na ma dafay nekk ci ñaari yëf hmm. benn bi mooy nit ki dafay dem a dem ba sàggane boppam xol bi feebar bu xol bi febaré mu jaamu keneen ku dul yalla jël keneen tek ko place bo xam ne keneen di ñaan. di ñaan di waaw waaw. wa man wax nañ ma la ñaan fi ci Sénégal fii ci non man nga ma ñaan ma hmm. may la sama alal juma mom lima mom sama portable yi loo ma si ñaanoon bu ma ma may la ko. wa ñom lu ñaan ñoom li ñuy ñaan yalla dong ko am. muy lan waaw li ñuy ñaan moy wër moy alal ñii yeb yalla ak dund bu nit dina julli talal loxo di di di di wax keneen mayma alal mayma li fiñ koy defé gëna graw ah sama mag ju bokkal nday ak bay mu ni and na ak ay nit ñu jàkkaarloog photo di ñaan mer ya ca bokk ñi ngi naan sama dom ji day day def examen laa yan fa wala yëpp la du jariñ ñu man bokkale ah loolu mooy bokkaale loolooy bokkale xol li koy indi nak moy xol bu dee ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خم قالوا تخ لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفقهون الحق والهدى ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها يا الله خم قالوا ملين وح من أولئك كالأنعام بل هم أضل بمو ياغ يا الله ني أولئك هم الغافلون دما يوح يا الله داق يا الله داق يا الله داق وخ كم يا الله alquran kenn mënu cee soppi. benn baat lii kenn mënu koo wax benn baat. lii kenn mënu koo wax sallallahu alayhi wa sallam mënu la wax koo wax. dafa doy waar lii yàlla rek ko mën a wax. yàlla mu ni safara jahannama dama fay ronkaas ronkaas. ronkaas waaw ronkaas mooy chargé ba mu fees ngay dolli. aywa waaw mm. ay jinne ki doomu aadama lu bare bare. waaw wa taqulu jahannama hal min mazid jahannama day siisu rek pour laaj. ñun yàlla buñ ci bokk. yàlla buñ ci bokk ñun ñu bokk ci ummatu sayyidina Muhammad kenn yàlla buñ ci bokk kenn nag. kenn nañu yàlla yërëm. amiin yàlla mu ni ndax dama leen a jox ay xol te duñ ci xalaat lan mooy dëgg. xàmmewoo alhuda xàmmewoo albaatil xàmmewoo ki bind xàmmewoo ki ñu bind. dëgg la waaw. ma jox leen ay gët duñ si gis dëgg. ay gët laa leen jox yàlla mu ni ay. lahum ayunun laa yubasiruuna biha. waaw ma jox leen ay nopp duñ ci dégg. ويعلى مني ولا إكال أنعام بودي من تفسير بدف نيل وان ولا إكال أنعام في فهمهم تنيو كومبراندر أي مالا يعلى بوم يعج سح مني بلهم أبدا ولا إكهم الغافلون ويباي ما سح مالا تاني نيو سجن واي واه ما تدار جا بوفا دمي boo xawee doon élève bu sàggan oustad bi dalay wax mu xafal bu lako waxé rek rayna ndax doomu adama du doon ku sàggan wa mu xafal baaxul wa mu xafal baaxul wa yàlla muni ulaika humul ghafilun ni ñoo sàggan ni ñoo sàggan kon yalla ñu yàlla musal ci lool kon lool la fay yubbe xol bi mu dem dem bay jaamu kenen ku dul yàlla wallahi mo xam lay doon garab lay doon. Mhm. xeer lay doon foto lay doon lu ne. Mhm. lu ne mën nga koo jaamu. jaamu daal jaamu yàlla lañ war a jaamu. yàlla dong nag amul bul bul bul limaat keneen. Mhm. ndax laajaata. laa ilaaha moom leneen moom ku fa jéem a dugg rek yaa fa. loo fa jéem a dugal tam yaa fa dugal. bul bul sax yaatal. yàlla dong rek. ñu yem foofu daal ci kaw ndax la maabuda bi xaqin. si wallaa la ñu wax. loolooy firi laa ilaaha illallah. kon nag buñ nee jaamu ci dëgg ku dul yàlla keneen mm-hmm. kuñ fa dugal rek yaa ko fa jéem a dugal yal nañu yàlla musal ci loolu kon dégg nga mm-hmm. beneen bi mu ni euh, dafay jaamu keneen ku dul yàlla xubban da koy jaamu bëgg ko di mm-hmm. am na fi ay dëkk ay réew fii ci ay ay gox-goxaan ci senegal mm. at mu ne dañuy dañu dinañu def ay tuuru ci seen rab ya ñu gëm rab ay million moo koy financé ay million ndax ku dëkk sa dëkk ba rek da ngay joxe Hmm. da ngay cotiser mu doon ay million ñu def juróom benn fan yoo te ne dañuy yàlla la déedéet la la la euh, waaw comme seen yàlla dañ koy rayal dañ koy tëggal dañuy fecc tuur ay soow solo lekk naan tëgg hmm. ak yan cay def yeneen ak yeneen kon mu ngi noonu xubban wa rajaan ba pare yaakaar ko ñu bari dañuy jaamu keneen ku dul yàlla. nit yaakaar keneen ku dul yàlla yaakaar keneen ku dul yàlla yaakaar ni kii mooy dàq te mooy indi. Hmm? kii mooy dàq mais mooy indi. moy dak moy indi bo tuddé sax ñun lay bayal turam yow yalla ñu yàlla musal ci lool wa ta'ziman ba pare diko magal nak dañ koy magal bu baax waaw waaw moo ci baqara yàlla waxon na fi ni wa minan nas man yattakhidhu min duni illahi andaadan yuhibbunahum ka xubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah ashaddu hubban lillah borom tafsir bi bim koy firi dañi daw man mooy koo xamante ne bii mbëggeelam dafa sax gis nga ñii di jaamu leneen lu dul yàlla nag mm. taaratan la rek mbëggeel gi bis buñ leen laajoon loo xamante ne bii bakken moo ciy aju wala leneen ñu daw <laughs> yàlla rek moo fi damay wax ni heure yàlla di woote pour ñu jaamu ko ci keneen ku ko woote woon kenn doo am client fajar gi waaw fajar ak lu mel ni julli guddi xiyaamul mm-hmm. lay xiyaamul lay mm-hmm. gaa yi nga xamante ne bii ñoom yàlla rek moo leen ñor heure boobu la ñuy jàkkaarloog seen borom dëgg la kon yaa ngi dégg mm-hmm. beneen bi moom mooy dafay comme limu sens contraire ko lay doon buy bëgg dafay bëgg ngir banexu bakenam buy bañ dafay bañ ngir banexu bakenam fa in ahabba ahabba li hawaahu wa in abghada abghada li hawaahu manam ku dem ba xolam de dotul dotul def dara ta yàlla déedéet banex bi rek wa yow amna ñu bari tay bu ñu bëggee nit intérêt tax rek deug la lay lay nga deg fi ci réew mi ñu ni ñoy nàngam bànneex a tax rek mm. wallahi wala azim mais loolu yàlla lalu ko yeneen bi lalu ko dañuy bañ di cité di wax mais ñoom ci seen conscience bu ñu toogee seen fitra ci boppam moo leen di wax da di caaxaan moo tax bu ñu wéetee sax dañuy bu ñu bu ñu teewee dañuy jayante bu ñu wéetee dañuy jëwante kese mm-hmm. looloo tax parce que li ko lal du yàlla li ko lal du yàlla yaa ngi dégg mm. kooku dafay dem a dem fal hawa bànneexu ba bakkenan doon mujjee doon imaamuhu mooy ñi di maanaam di ko giide waaw di ko jiite والغفله مركبه سجن نيك ورواي ورواي سجن لا تينتي بلان لو خون يعني لان لو خيال لو خون سورة الكهف دانيك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صلى الله عليه وسلم لا يعلم صلى الله عليه وسلم bu leen topp. dëgg la kii nag day dama dem ba moom sàggante mooy doon warwaayam. Hmm. sàggante mooy doon warwaayam. naam mu ni wa shahwatu qaiduhu waaw. ay ilaha illa mooy doon qaidam moo koy wommat de mooy koy wommat beneen a ngi nii wal jahlu saaiquhu boobu nag laa gën a ragal yal nañ si yàlla musal réer à vie la réer à vie xam nga xale dañ leen di wax jàng yàggul ñàkk a jàng moo yàgg xam nga ñàkk a jàng à vie la ah, réer gu tar waaw à vie la lu wér wal jahlu saaiquhu xam nga lu mu ko tëjee mm. dani naudu billahi min hada al qalb lii rek a ci war a topp dëgg la kay ñi ngi ñaan yàlla musal ñu ci xol bi mm-hmm. ñi ngi ñaan yàlla yàlla musal ñu ci xol bi mm-hmm. waaw waaw kon Seyda Seynab dafa mel ni dañuy toxu dem ci xol bi nga xamante ni bii dafa feebar. waaw xol moom dina feebar gaa. xol bi moo ëpp ci société bi bokkul nag ak koo xam ne xol xolam moo feebar feebaru matière. déedéet déedéet déedéet déedéet. kooku ñoom kër ñoom docteur a koy faj. kooku docteur a koy faj. waaw ay ñoom it comprimé ak ñoom it piqûre rek. kooku yaay Zeynab du ko faj. xol yi ma doon wax nii ku ñëw ci yaay Zeynab moom dina la orienté wu ba nga faju waaw xol yi li ma doon wax léegi ku ñëw ci li nga xamante ni bii ndax ah marit alqalbul mayit alqalbul mayit xol bu dee xol bu dee boobu islam moo koy dekkilaat islam moo koy dekkilaat diine moo koy dekkilaat diine moo koy dekkilaat dégg nga afa man sharaha allahu sadrahu ah comme na ko aaya bi waxee ci suratu zumar fa huwa ala nuurin min rabbi leer googu bu ci duggee dafay xol bi dafay dundaat loolu nag ña koy dekkal moom mooy al ulama warasatul anbiya ñu mel ni yéen ustaz baal ma sànq dangaa ni Euh, iñaan mhm. borom xam-xam yi ñoo ko séddoo. waaw lu tax. waa feebar la. yan borom euh, xam-xam. li tax moom mooy ci fiiraange lay déparé. Hmm, li ma lay wax nii Euh, tagi katu yonent bi fa la gëna fessé sallallahu alayhi wa sallam ah, damay fréquenté <laughs> léeg-léeg ak ñu xam nga invité jeune lan moo tax mu neex. respectateurs ah, ah. <laughs> yi. ñom xam nga jeune mom <laughs> day dut baram ya, ya ma boo ma baalee sax maa ngi ñaan sama mbokk yi. Hmm. ñu euh, tijji nañ këf ki wala guñ ko. téléphone bi waaw daa mel ni tijji nañ ko. waaw ñi ngi ñaan yaal ñi ngi ñaan ngeen dugg ci ñi ngi leen di ñaan yeen nga tagi katu yonent bi. waaw ñi ngi ñaan ñu dugg ci katu tant que bi kuy tagi yonent bi. nga ne ñooñu ñoo gëna mëna ci a. biir. non léeg-léeg nga dégg ñu ne téye nañ baat bi de. waaw li ma lay wax du ay dégg naa man toujours ci sama daawa bi may jéem a yëngu te ñu ma ci yar. Mhm. man li may bañ mooy dégg naa ju bari. xam nga lu ma gën a xam gis gis. lay sal xabaru kal la la yàlla waaw waaw mhm. Mhm. damay dem man fi may damay dem de. man du ma toog naan damay dem. pour xool xool. da ngay gis ko xam dañuy nangu micro bi ci mom mer mer gi mi genee tante bi da dafay mujj waruñu koo nangu nag waruñu koo nangu nag te xoolal yenent bi liko ko yàlla waxoon ci ci ci ci ci ci ci suratul ali imran lan la ko yàlla waxoon subhanahu wa taala فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حول غليظ القلب موي تانغ ساين تانغ ساين buñ jëlee micro bi waa ji siisu mer génn. Mhm. tàggikatu yonent yi nekk Sénégal laa xam nga li neex mooy man euh, comme ni nga koy waxee. man damaa génn ci kër kër kër kër yi ñuy wax këru diine. ah ñun dañ caa bokk. waaw fa laa bokk. dañ caa bokk man waxuma ay lii tey jii damay wax. ci kër yi man li may wax dama koy déparé ci kër ga. soog a wax ci mbedd mi. ci kër laa bokk. Mhm. ci kër laa bokk la may wax dama koo jigéen lool waxuma di làmbat wala ma nekk benn non la may wax dama koo jige mm-hmm. te damaa yaakaar ni dama see gën a am mm-hmm. dogu pour wax ci nag dëgg la waaw mm-hmm. ki ñaan gars yi léeg-léeg dañuy baatu waa ji ku tagg ku ni yonent bi nag wax dëgg yàlla eh, dama ne la léeg-léeg ñu jox la sarax mm. sarax bañ la jox tooke la boo ko laalee yàqu nga ëpp naa wax sarax mm. moo xam xaalis buñ la jox boo ko tegee loxo mm. yàqu nga seetlul leader yu mag yi ci taggkat yonent bi fu ñuy fu ñuy taggee yonent bi am am na gaay bi leen di wër ñooñu ku nar a egsi si ñoom ñoo lay baari booy joxe sarax sax ñoo ñoo koy laal waa ji ci boppam du ko laal jamais ndax xam na Abdoulaye de doy na waar dañ léegi manumaa laal soxna Zeynab nag ci ay xonjam ci ay def defaan mais suba ma bëgg taxaw di wax ci islam man na des fois loolu damay ne est-ce ah, bi de liggéeyoon ko jàpp est-ce que liggéey tamit liggéey liggéey liggéey دنو جاب كم سانو نون نون نون أهانكاي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لقيه نحن كم جاب سبب بيتخ سورة الفلق أك سورة الناس أمي يو خنجم لون فين بسانو تيتين أي أنت خنجم وامي إندي نحن أي أنت خنجم ما أنت خنجم ليلة خنجم يدفع جنة بير أدير نك بدينا دال نيت واو غاي دنيا يو بعاني ماد أي ميم لني أبدي القرآن تجاه لمن جنة نقري ما يباون في القرآن ميم ينتي القرآن لني أبدي دوغل لفدي ah mais soo soo xëyee boo defee say say ñaan est ce que la liggéey boo defee sa maasuraat yenent bi daan ma xëyee ba jàng sama maasuraat yi ma yi yenent bi jàngale mm-hmm. laa ilaa laa ubaar loolu moo tax ma lay laaj man la comme yonent bi dañ ko liggéey mooy suñu échantillon mu dal ko mais ñun mu bàyyi ñu fi xam ne daf ne suñu xëyee di ko wax buñ ñu liggéeyee du ñu dal moo tax du ñu wax mais xam nga lu bari ci umma bi dañoo xeeb loolu ah, يوي دنجو بوني لين ديل وخ لا حول ولا قوه دنج نان لا حول ولا قوه الا يو لول بوني لين ديل جانغ ايات الكرسي بوب سوره البقره امن الرسول اف حسبتم جانغ اك يينن نيان يعني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كذا وكذا دنج مي يو كي مي وخ خمغا غاي لونو بغ اي تالسام خمغا تالسام خمو تالسام <laughs> موي غاي دنجي جيل آه، آه، تالسام وا تالسام moy dañuy jël baat bi. baat bi li la dal daal. bi li la. ñu génné ko déchiffrer ko. génne ko légui mu tëgg ben baat. loolu xam-xam la xam-xam xam-xam ci wenen wàll la. ñun yëngu wuñu ci loolu. xam-xam la ci ci yenen gaay ñu baye kaak bàyyi ña yëngu. ci yenen gaay xana xamoo mawdu bi ñuy waxtaane ni mom moy al qalb al qalb nga baal ma rek de. al qalb bo démé ci al qur'an mi ngi rot 132 fois. baatu xol baatu xol. yàlla tudd na 32 fois. 32 32 130 astafurlah 132 téeméer ak fanweer ak ñaar boo demee ci yi ñii di yëngu ci xam-xam bi ma la wax léegi ci wàllu lasraar dañ ni la alqalbu boo ko boo ko boo ko déchiffré moom daf lay jox 132 alqalbu xam nga ñoom dañ la naan alif bi 1 la baa bi 2 la maanaam adat yi adat yi boo ko boolee ñoom buñ ko adadee alqalbu ci boppam adadam ci alquran ñoom bu ñu adadee alqalbu ci boppam loolu lay joxewaat nga jël alqulub boo ko adadee moom daf lay jox 138 boo ko adadee ñoom donc ci yii la ñuy def ci yii léegi nag nga boole leen ñoom ñaar boo ko adadee xam nga lu mu lay jox boole boo boolee alqulub boole alqalbu nga adad leen ñoom ñaar daf lay jox 270 ñu ni la 200 270 moom mooy jàpp turu yàlla bi ñuy wax alkarimu te alkarimu ci la góor yàlla di defaree xol yi man de yaa ngi mel ni koy wax ay anglais man man li ngay wax nii comme ay anglais ngay làkk ci man ma xam lan laa xam téléspectateurs yi seetaan ku xëy comme dañu nekk si jamono bu doy waar defal say ñaan laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir soo ko waxee téeméeri yoon mhm. wax bismillahi lazi la yadru ah, ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama trois fois a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa man de su ma ko waxee pour man jeex na te lii mooy nee naa man mi toog lii rek laay def. Ah. man mi toog ña may jàngal aussi damaa fexe fexe ba jàngal leen la may wax. ña may jàngal ci boppam. Hmm. tey ña ngi may seetaan seeni waajur ak may seetaan. Hmm. ña ca raw fexe nañ ba yii may wax nii ma suuraat yi nga xamante ne bii sobaaxan wa masaan la ñu jógee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fexe naa ba jàngal leen ko. Hmm. man ndax nee naa leen ah ginnaaw ba ñun du ñu yeew. te du ñu kii du ñu benn. Ah, ñuy def li ah, fi yi nag nee nañu génn góor ci Sénégal. nee na nit nit fi mu war a bien ah. fi muy bien ah. nee na foofu waru la fendi toujours dafa war a tooy ah. waaw mais benn benn benn góor de nee na àdduna neexul mais ku nekk bëgg na fee yàgg nee na boo fi bëggee yàgg di nga takk ba fees wala nga sang ba tooy wala foo jullee nga yàgg fàkk ay allahuma dëgg la loolu sabab la si <laughs> loolu sabab la si mais ñun ginnaaw ma nii la ñuy def ak ay duruus ñu duñu bien duñ takk moo tax ci li yeneen bi bàyyi rek si la ñuy sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg kon kii moom dafa tawat mhm. moom xol bii dafa tawat waaw xol buy liggéey nit moom da ngaa ndax moom taaratan mhm. dafay féetewoo ci yàlla léeg-léeg mu féetewoo ak bànneexam xol bu feebar bi am na luy dund ci moom am na lu dee ci moom léeg-léeg xol bi day yëg yàlla moo tax léeg-léeg nga seetaan ay suraano wala nit seetaan si émission cooy wala léeg-léeg nit dem ci muhaadara boo xamante ne bii conférence bu soxna Zeynab di animé Zeynab wax gis naa ko mais jooy da nga naan mais kii fees na dell ak yàlla mais bu génnee bu jéggee tali bi bala moo jël taxi bi iman ji wàccaa waaw al iman nag yazidu waaw yazidu wa yanqus mais mais mais mais lii marat la bokkul ak bëre bëre gi bokkul ak iman bi yazidu wa yanqus mais am na benn saxaaba bu waxoon yonent bi su ma toogee sa kanam sallallahu alayhi wa sallam may fees dell mais su ma génnee dem kër ga rek daal di ko saatat mu lu ah. ko affaire bi nii la saatan fa saa nii la ba pare nag yonent bi def ni nii la buñ defoon nii nag xocc xocc xocc kon ah. malaaka yi dañuy wàcc di saafoonte ak ñun mi ngi noonu kulub nu aadama xabta xabta wa xayrul xabta ina tawaa tawaabuun waaw kay ñëppay def bàkkaar mais soo defee bàkkaar rek li gën mooy nga reculer dem dellu mais kii bu ma egsee ci lii bu ma egsee ci lii tax mu feebar mm. di nga d'accord ak non man yow man d'accord ak yow bu yàgg. ci moom. am matière ci moom. dund ci moom am na. al imaanu billahi. wal ixlaasu lahu da koy sellal. am na liy dund ay mbiram yépp yàlla subhaanahu wa ta'ala. beneen bi moom mooy dafa am luy faatu ci moom hmm. euh, ñi ngi ziar bu baax a baax suñu suñu kilifa euh, Cheikh Doudou ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko nuyu te euh, bëgg naa daal mu mu mu mu jàll si daal bëgg naa mu mu jàll si bu baax a baax. kan si suñu suñu suñu suñu taawu papa la. Ah. moom daanaka moom a yor kër ga. waaw téléphone bi moom bu amul benn problème rek macha allah macha allah dégg léegi nag li tax mu mu feebar moom mooy. feebar bi xol bi ci boppam am na alxasad ki ñaan gi ñu doon wax léegi. waaw ki ñaan moom baaxul waaye. am na alkibru rëy. rëy baaxul. am na al ujubu mooy yéem. yéem sa bopp loolu baaxul. am na wa xubbil uluwi bëgg ak kawe. boo demee gis nga maama ni li tax ñu bari Dakar xam nga maama ni mooy gars yi yëngu ci wàllu xaatim ak ñoomin seen li tax ñu bari fii ci capital bi directeur société entreprise yi ak ñi nekk ci liggéeyukaay toujours dañoo bëgg nekk fil qimma kon nit nag il faut am ku la nekk ku la féete kaw mais noonu la yàlla bindee euh, kawnu bi mm-hmm. mais dañ naan déedéet bu ma yaay Zeynab jiitu de naa ko jiitu toujours na topp sama ginnaaw man dégg naa koo xamante ni bi dañi dafa dem ci sëriñ bi ni ko damaa bëgg fa may liggéeyee lu ma wax rek nañ ni waaw waaw pour ñu bind moom ñu sax li mu wax ñëpp nee laa doon ñëw ak yow ci yow mi ah, ñaata yoon la yàlla wax ci alquran am na gaa yu dégg ba pare ni sami'na wa asayna mhm. waa xanaa wax jooju leer na bopp leer na kay waa dégg nañu waa léegi ñoo lànk defuñu am na beneen buñ ko xam nga dañ ni ko qulillahumma yow yàlla faatira samawati wal ardi yow mi moom asamaan ak suuf bu fekkente ne bii li ngay wax ni dëgg la waa léegi tawal ci ñun tawab xeer ñooñu nag dañoo dëgg fit xanaa xamoo ba bari na waa àddina lu ñuy wax ay baat loolu nekkoon ci alxuraan démb dañ ko doon wax tey dañ ko dekkilaat xam nga loolu danga koy dégg mm-hmm. ñun la bu dee yàlla tawali xeer mm-hmm. dañ koy wax muutu waaw xam nga dee leen da nga dégg ku dee na xanaa dee na muutu bi xaysikum waaw muutu bi xaysikum bi xaysikum mm-hmm. xanaa dee nga xanaa loolu yëpp alxuraan da koo wax ba teg moo tax gis nga yéen ñii yëngu ci diine kenn gënu leen a dégg jamono. yéen ñii yéen waaw waaw yéen. yéen waaw non xam nga lu tax ma ni yéen. Mm. yéen a jiitu ci Maydaan. Mm. yéen ay xàll yoon ñu. toog ah mais yow yéen macha allah de yéen ku ne rek. macha allah yaay Zeynab kenn gën parce que alquran ki muy communiquer. Mm-hmm. kenn du ko gën a dégg jamono. waaw dëgg la day dégg jamono mooy mooy dëgg jamono. mooy jamono alquran mooy dëgg jamono. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mu ni wal fasaadi fil ard te ki am feebar. dafay mm. bëgg yàq ci kaw suuf si bokk na ci li yàq suuf mooy def bàkkaar yu bari وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آه. تعالى إنهم نعم خم قولي نيوا تيرد من دني دفر فعلا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا, لا يشعرون آه. زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس نيكو في ديف موي نون نيت نك آه. دي ياق رك دي ياق رك على اللي دوم آدمين تاي داماي واخ خولال سونو سوسيتي بي الدر xanaa xamoon ni benn waaye nee na. balaa kenn wax rayu ma nit na xaar ba dem yomal xiyaam ba yàlla audité ko ba pare keroog yaa ngi ko doon wax. nit wax nga wax joo xam ne dee ba pare. fekk dee ba pare ah, waxal yaay Zeynab baat yu ñaaw xas ko xas yu ñaaw saago ko saago yu ñaaw te xam nga léegi ñun suñu wasaa'ilul i'laam. ñu saaga bul fayu. waaw ah. oustaz. bu ñu jàkkaarloog yow saaga la. bul fayu xam nga lu tax. boo fayoo da ngeen koy séddoo. dëgg la boo fayoo. da ngeen di séddoo saaga yi. boo ko bàyyeeg ay saaga. bu pare bàyyi koog yàlla. yàlla Linga ko euh, li nga wax nii mooy wane nu yow. istifaadaw nga ci jàngale bi yonent bi. waaw ah, ci saaga fayu. waaw jariñu nga boo fayoo rek séddoo ngeen ko. Wah. jariñu mais tant que fayoo rek séddoogu leen ko. moom moom rek wax nit lu ñaaw du ci yam. Mm. da koy publier ci wala mu publier ko ci leneen mm-hmm. ah te nag sëb la de. waaw la koy bënn day nekk ci biir. wallaahi ah. Mm-hmm. yàq deru doomu aadama. Mm-hmm. ñaata ci ay nit ñu baax lañ fi woo téléphone diw ñuy en ah, saaga la. Mm-hmm. wallaahi defoo ko waxoo ko. xam nga loo wax yow. xam nga loo wax mooy yàlla kenn la yeneen tibee fi gën. sallallahu alayhi man xam nga lu ma wax mooy yàlla kenn la yeneen bi fi gën nit jëppi ma mm-hmm. nit mere ma nit ni waa ji dootu fi waxati mm-hmm. kii dootuñ ko joxati suñu rajo mm-hmm. te waxoo lu dul ni yàlla rek lañ war a jaamu yeneen bi dong mooy roy waay rek gaa yi jéppi la saaga la bu ñu yàq kaw suuf mm. buñ ko yàq buñ ko yàq tam ci ay diw mi pàcc bii la bokk keroog waxoon naa ko te dama ciy jaaraat waaw yàq dem ba ci lu ne lu ne lu ne du ci dugg beneen bi moom mooy wan nifaaqi ak naafiq war riyaayi ak ngis dal dégg nga wax na ci feebar yi moom mooy maradum nifaaq euh, feebar naafiq la mooy naafiq naafiq mooy ma yor ñaari kanam Zeynab yaa Seyda Zeynab kanam gi ma kanam gi ma lay wan ak bu ma wàccee ci suuf la may wan ñooñu ak la may wax ñooñu day wuute yaa mooy koo xam ne dalay woon kanam gu ne waaw waaw waaw waaw am na ku ñëw Mouhamed waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatulah maa ngi ziar bu baax di sant suñu ustaas ak suñu imam bi mhm. mi ngi lay fay yaa koy dégg mhm. kooku. te yàlla ko yàlla jàppale. kooku amiin ah, ah, sama taalibe la. sama sama la sama xarit la. ndeysaan xale la. Mhm, macha allah man dama fexe ba jéem a bëgganteeg nit ñi. moo am solo nag. xale la moo am solo moo am solo. tax ñu bëgg la moom. waaw. نت موقع ندخ سنو برم دفا وخوان لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الود يعني هو الحب هو الحب يعني ديك غور غور لول باسخ تي لي يالا سانت رك موي تو نكو لا تري حب بي نيو تي ياو واي نانت بي لي داخ نيت ني بوجو كو باي بوجو ديف سونو بوروم غيسونو كو غيسونو كو اكا غيسونو yaa ma gën a bëgg yeneen bi fuuf. ñaata yoon laa toog sama néeg damay toog ba mu yàgg sama soxna man na maa seede damay xalaat ci yonent bi rek di jooy. xalaat dong di jooy xalaat ko rek de di jooy de. yaa ngi dégg kon bokk na ci feebar yi maradul nifaq mooy zul wajhayni mooy boroom ñaari kanam fii ci palaato bi bu ma la fi toogee yow reetaan la ay waay Seyda Zeynab yal na yàlla dëgëral la ah. mais gis nga bu ma génnee dafa xaw a gistalu moo tax. mais loolu baax bëgg àdduna. waaw baax keroog wax nañ ko keroog benn ministre. wax na ko ah, fële ci Touba wax na ko ci Touba. mooy bëgg àdduna mooy bëgg yàlla waaw. ah bëgg àdduna mooy bëgg yàlla bëgg àdduna mooy mooy bëgg yàlla mooy bëgg yàlla bëgg dund gi waaw mooy bëgg yàlla macha allah yàlla moo la indi ci dund gi waaw moo la ko tàggatal waaw boo ko bëggul bëgg mais boo ci féetee ba mu rek da lay yóbbu non doo ci féete ah. boo muusee waaw doo ci féete macha allah da ngay dund ñaar yi ah, da ngay nekk ci baynal xawf war rajaa war rajaa waaw jeex na di ragal tey yaakaar benn ministre wax na ko mhm. ci bii ginnaaw ba cérémonie bi jeexee mhm. dañuy sëriñ bi mu fi doon wax léegi. Mhm. te ñun am politique yëpp toog fi. Mhm. ñëpp bokk benn keppaar ñun ñëpp toogandoo ci benn ronu baas. Mhm. déggandoo li mu wax. ñun ñëpp di joxante loxo ko saafoonte te bu ñu duggee Dakar Ndiaye di lekkante kereen. mais xam nga lu ci teg. mais lii jikkoy naafeq la. wax waxuma ko de. moo ko wax. dëgg la dégg nga war riyaa ak ngistalu. yaa ngi dégg xam nga boo gisee yeneen def dara def dara te yàlla taxul wala nga bàyyi mbir waroon koo def ngir yàlla bàyyi ko ngir nit ñi waaw ah, yaay Zeynab dafa war a jottel yàlla ni fi faral di wax xale yi ah, ah. nit loo sentirul yàlla bul ko def bu ko def bu ko def loo sentirul yàlla bu ko def xam nga lu tax ki lay tagg tey moo lay xarab suba ahankay ahankay كلي تاك تاي من لا خرب سو مولاي خلب سو موتاخ يالا بولا خاسي با تاك موم جيخنا جيخنا واه موتاخ داما كاي واخ ميم سوما مبوكي امامي سورتو ني دون داو خانا دا ngay جيتي فوفو تام واه داماي جيتي اه اك نيغا نيكي خالي ني خالي دينا جيتي خالي دينا جيتي نعم خالي دينا جيتي ناخ سي شارت امام يرنتي بي باموي لي صلى الله عليه وسلم اه داني اقراهم لكتاب الله ci gën a jàng téere yàlla bi fa in kaanu fi lqiraati sawa fa alamuhum bi sunna fa in kaanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra dëgg la après nag mu mujjël nag léegi nag gën a féete mag mhm. mais nag ñun axe bi la ñu def bu dee ñun ci société bi ñuy dund diw moo mag mooy jiite donte mënul alquran xale sax du fi am dëgg waaw mhm. donte buy jàng alquran day yàq mooy jiite mhm. mais du looloo diine loolu ñun ñoo ko war a xeex diine leer na de waaw loolu leer na waaw waaw leer na diine li mu jàngale dafa leer nañ euh, Seyda Zeynab bokk na ci tam wa bëgge imaam Ali xam nga lu mu doon wax. Hmm. daf doon wax ni ash ashjaun naas. Hmm. ashjaun naas asqaahum ki gën a jàmbaare ci nit ñi mooy ki nga xamante ni bii hmm. moo gën a tabe ki gën a tabe moom mooy ki gën a jàmbaare ci nit ñi xanaa xamoo nay ak bëggee ragal la nee nañ maye ak xeex waaw boo ko dee waaj doo ko def waaw damaa bëgg a maye lii di waaj boo ko dee doo ko def bëgge baaxul bëgge baaxul de wallaahi te ba bëggee li koy yóbbi mooy nit ki nay day dem di nay di nay ba mu yàgg mu bëggee sa alal ji nga yor dee ci dépensé demal yóbbu ci daara yi demal yóbbu ci jakkay yaangi deg ngi salla yàlla daf ko wax yenente bi ci alquran ci suratu muhammad am ni koy tuddé suratul alqital mu ni ko ha antum haulaai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi fa minkum man yabqal wa man yabqal fa innama yabqalu an nafsi wallahu alghani wa antum alfuqara yéen ngi nii de yéen yéen waxtaan bi de dafa neex ba. waaw nee nañ cinq minutes moo des. cinq minutes moo des. waaw man pour man commencé guñu sax. pour ñu waaw waaw. xam naa incha allah. dafa neex moo tax macha allah ah mais jeexagul. waaw kon yaa ngi dégg. yàlla ni ko nag. na nga leen xamal ni képp ku nay. nayam googu moom ci boppam rek lay këpp. wallahu alganiyu albaxiru laa yabuulu. waaw waaw waaw. ki nay dëgg non nay baaxul te islam soxlawul ku nay aljana moo tax ñu ni dafay wax aljana dafay wax aljana waaw aljana dafay wax ci jëmi boppam ni mhm. giñ na ci yàlla ak màggaayam mhm. moom ci biiram mhm. ku nay du fa dugg waaw yàlla daf ni ko takkal na nii waaw ah waaw waaw ku nay du dugg aljana xam nga ñi nay dëgg mooy ñan mooy ñi seen milliards yeeg seen millions yi bañ koo dépensé ci yoonu yàlla te boo faatoo fi koy bàyyi waaw waaw Sénégal est que xam nga ni réew mu naqaree feebar la fu neex a deewee dégg ma li nga wax déggoo li ma wax. déedéet Sénégal. Hmm. réew mu naqaree feebar la. Hmm. réew mu neex a deewee la. naqaree feebar bi mooy. naqaree feebar bi mooy boo fi feebaroon sa mbokk mi la jige yàlla dénku ko ay milliards ak millions benn ordinance bu cent cinquante mille moo la war a faj du ko indi. laa qaddarallah buñ nee diw génn na àddina ñetti nag lay indi. ak genn wàllu tonu ceeb. baas ba riche lool ah, baas ba riche ñu defal turbine ak leneen ak leneen gars yi sañ si ñëw toog di wax. moo tax dafa naqaree feebaree boo xam ne ordonnance six mille rek. waaw waaw te feebar rek laa tudd mais ak yeneen. ak yeneen yoo xamante ne bii maara day taali. neex a dee mooy faatu ñu dëjël. waaw eh boo fee waaw dañ lay dañuy dem sa rob ba mu neex. dëjël la ba mu baax. ndeysaan waxtu bi dab nañu mohammed waxtan bi macha allah. wa waaw am solo yal yàlla fay la aywa macha allah. lan ngay tagato limay tagato moy awalan dañ lay njëkk ñaanal. amiin yow la ñuy ñaanal yàlla dëgëral la amiin yàlla aar la amiin comme ni mu aare woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu yaasimuka min annaas sirru boobu yàlla na yàlla defal amiin li nga bëgg ci islam li nga bëgg ci këru diine li nga bëgg ci Sénégal ci monde bi yàlla na yàlla defal di nuyu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñi jiite nañu bàyyi xel yàlla dëgg la ñi jiite tàmbalee ko ci raisu dawla ba ci ki gën a suufee. ñoom ñëpp nañu bàyyi xel yàlla. subxanahu képp ku jiite képp ku yore responsabilité. waaw bàyyi xel ñi nga jiite képp ku yore responsabilité. bàyyi xel ñi nga jiite. dëgg la kilifa yi nañu bàyyi xel njaboot àtte nañu bàyyi xel inil xukumu illa lillah. wallaay dëgg àtte nañu xam ni ëllëg dinañ ko àttewaat ci kanamu yàlla. di ñaanal mbokki daara yi. daara yi ñu ngi leen yàlla yaatal amiin yal na yàlla yaatal ëmb na lépp. amiin dëgg la kon ñu ngi nuyu waa Ndiassane. di nuyu waa Yoff. dëgg la Ndiassane ñu ngi nuyu suñu maam suñu xalifa. Mhm. ñu ngi nuyu ñëpp rek. maam Mambu maam Mambu. di nuyu ñëpp incha mhm. allah. Mhm. di nuyu Yoff sama kilifa. Cheikh Doudou Mbaye. di nuy waa Daara ji xam naa ñu ngi ñuy seetaan. di nuyu euh, imam euh, Cheikh Baba. mooy imam Papa Ndiaye. dëgg la imam.